ligue sénégalaise de football professionnel laa nekk. Mhm. ligue sénégalaise de football professionnel c' une ligue délégataire n' est ce pas de pouvoir de la fédération sénégalaise de football donc c' plutôt la fédération sénégalaise de football qui est en relation directe avec le ministère de de et mhm. avec l' mhm. donc nous sommes disons de la de la fédération sénégalaise de football mais euh, ci question bi ngay posé da xam ne le Sénégal quand du dëkk y a pas suffisamment de moyens parce que problème bi ci nekk yëpp c'est un problème de moyens nest pas qui se pose aujourd'hui euh, je pense qu'il y a 27 ou quelque chose comme ça de fédération yoo xam ne état bi def leen war a jàppale fédération yëpp yemuñu doole n'est-ce pas am na yoo xam ne c'est de fédérations locomotives par exemple bu jëlee football mën na ko comparer ak yeneen fédération parce que ñëpp xam nañu football li muy def ci dëkk surtout football Sénégal fi mu toll donc euh, li ngay wax noonu moo daal football bi le football demande aussi des moyens surtout le football professionnel. Mhm. parce que da boo jëlee dëkk yi amul benn dëkk boo xam ne football professionnel développé na te état tegu ci jàpp ci. mi ngi jàpp nag waaw que état infrastructure yu bëri état mais dañu war a jàppale club yi parce que football professionnel c' est comme les entreprises ah. ni ñuy jàppale entreprises yi Sonatel bon pas Sonatel peut être mais yeneen entreprises yi nga xam ne dañu nekk en difficulté. Mhm. noonu la war a jàppale football bi d' autant que le Euh, des de des de des des secteurs yi nga xam ne li muy indil Sénégal Sénégal mënu ko quantifier Sénégal mënu ko quantifier c'est extraordinaire ce que le football amène au Sénégal aujourd'hui vous suivez tous l'actualité est dominée pratiquement par le en, général par le parce que li muy wax ñoom mais on a également énormément de moyens tey ci ci li mooy le football bien vrai que des na mais aussi tey xëy na soutien boobu nga xam ne ñu ngi koy defal le football la boxe taekwondo leneen ak leneen xëy na bu ñu ko amoon tey leneen la ñuy waxati mais c'est ça en fait la difficulté majeure de la du ministère c'est la clé de répartition parce que aussi euh, comme ni ma ko expliqué rek euh, fédération yi amuñ doole waaye nag li war état bi mooy jàppale ñëpp tous les sports mm-hmm. parce que les sports d'abord c'est pratiqué par la plupart du temps par des jeunes mm-hmm. ñoo gën a sport de compétition bi compétition parce que le sport en général tout le monde le fait <laughs> mais sport de compétition bi c'est les jeunes donc la fait le, le rôle du ministère de l'État c'est de d'aider d'appuyer toutes les fédérations mais nag comme li ñuy wax rek euh, euh, bërëngu dajul suuf day métti pour affaire bi mat fépp loolu moo mënta nekk donc